yéen kay gi nag xëy amal ci ab taxaw seetlu waaye ci beneen wàll wi union africaine jël nañ dogal wax ne ne euh, bëggatuñu maanaam yebal ay takk der wala bëgguñu sax ñu yebal ay takk der foofu nga xam moo di ci Niger euh, li ñu bëgg daal mooy ñu woote waxtaan ndax jañ jàpp ne réero amul ñàkk waxtaan rek am noonu la ko yéen kaay gi xëy fësale yéen kaay gi ne neexul ba neexul waaye fi mu toll union africaine ñu ngay désarmé CEDEAO euh, leneen tamit loo xam ne yéen kaay gi wàllu fu ko tëjee xëy na ko fësal te mooy kawteef gi am ci géej gi la jamono yéen kaay gi di Walf Quotidien ci diggante weeru sulet ak weeru août weer la yoo xam ne weer yu ñuul la pour Sénégal ndax la ca faatu ci ay doomu aadama jéggi na dayoo noonu la ko yéen kaay gi di Walf Quotidien xëy fi si la yéen kaay di l'observateur yéen kaay gi di l'observateur dafa xëyee amal ab taxaw seetlu jëmale ko ci soxna si di Mama Koundoul yéene kaay gi ne soxna si mujjee naa feeñ waaye li ci xaw a yéem mooy ba muy feeñ indaalewul ak ëmb ba ñu ko laaj nag dafa ne wasin na waaye ña nga xam ñoom ñoo ko jàppoon ñoom ñoo dawaale ëmb bi ñoom yóbbu xale bi waaye nag loolu taxul nag policiers yi gëm ko ndax fi mu toll nii eh, ña ko téye eh, yóbbu nañ ko gynécologue gynécologue di xaar di ko doon ko xool léegi nag li xaar mooy mhm. eh, résultat bi noonu la ko yéene kaay di réew mi xëyee dellu soit waaye yéene kaay di la mandat xëyee dellu soit ci candidature Benno Bokk Yaakaar Boun Abdallah Dionne jamono ji ma ngay wane ma ngay dalal gaañ Euh, ne daal nañu gën a dal noonu la ko yéene kaay gii di la mandat xëy fësale si jamono jujilee euh, Bassirou Diomaye Faye ndax tey ji daañu ko bàyyi mu ñibbi këram en tout ji daal ci lay fas euh, mu ngi ci yéene kaay gii di la mandat le peuple quotidien waaye yéene gii di le peuple dafa xëy dellu siwaat ci Mouhamed Boun Abdallah Dionne mi ñu ne jamono ci ma ngay wane moom ci boppam moo war a président Macky Sall ci bopp réew mi lee noonu la ko yéene booloo nekk benn euh, xaj xàccandoo durandoo loolu nag bu ñu ko defee rek voilà euh, budde élection présidentielle yi dañuy si dégg wiw yéen a kaay gii di le peuple kon euh, ci loolu la xëyee dellu soor Abdoulaye. direct news. yéen a xëy samp laaj bëgg xam carte blanche bi nga xam ne ni ñoom leader benn bokk yaakaar yi jëloon nañ ko daal li koy jox njiitu réew Macky Sall ne ko mbir yaa tam nal ñu mm-hmm. ndax loolu dañ ci nekk ci ñoom responsable yi dañuy nekk ci tànk dellu deltu ci ginnaaw yéen a kaay gi moo xëy fës loolu nañ ne fenn fu ci nekk ay ñoom responsable ñu ngi wane seen bopp kenn ku ne yaa ngi fa gës dën naan man na noonu la ko yéen gii di direct news kon xëy fësal Abdoulaye Seydina Omar Ba l'info yéen gii di l'info ne ñu ngi jëm ci élection présidentielle yoo xam ni neexul ba neexul ñu ngi posé la question ndax dana am mm-hmm. euh, ndax juróom-ñaari weer moo ci des waaye ba fii pré waa coalition Benno Bokk Yaakaar amaguñu seen candidat benn ñaarab aussi euh, dañuy ragal aussi même bu fekkente ni tànn nañu ko fësal ndax naka lañu demee ay élection yoo xam ne nii mhm. Ousmane Sonko bokk ci loolu tamit question la boo xam ne nii yéen kaay gi di turbine fu mu taxaw yéen kaay gi di nga xam ne ni ndaw ñu ngi koy jànkonteel ngir am xëy yéen kaay gi ne neexul ba neexul Amadou Ba mi élément jawriñ yi eh, da ca tële maanaam amoon ci saafara yéen kaay gi moo xëy fësal lu ni mel leen itamit loo xam ne yéen kaay gi xëy na ko fësal te mooy bu Abdoulaye Dione mi ñu Euh, fu bi nekkoon fu mu toll nii moom mooy kii taxaw ngir wutu président Macky Sall mhm. ndax jàpp na ne ak moom euh, continuité lay doon ci euh, projet yi nga xam moom la fa président Macky Sall bàyyi mhm. noonu la ko waxee ci yéenekaay gi di la tribune Abdoulaye yéenekaay geneen le quotidien waaw bu dee yéenekaay gi di le dafa xëy sol dafa sol dàllam utali fa nga xam moo di ca fas Euh, di dellu soit ci jafe-jafe gi nga xam ne ne askan bu dëkk fële ci France bi ñu koy dund jamono ji mhm. neen lu ci tolloog juróom benn fukki doomu aadama ñoo seen bakkan fële ci waaxu kàddu gi nekk nag situation bu metti boo xam ne ni yéen kaay gi euh, wala fii ci Sénégal ñu ngi koy dund jamono ji mu ngoog euh, Sud Quotidien fa la desandi waaye yéen kaay gi Sud Quotidien ne neexul ba neexul waaye doomi aadama yi wala ndaw ñi ña ngay wéy di ñàkk seen bakkan ci géej gi Euh, jël na kàddu gi daal di koy jox professeur Ali Tandian ab jàngalekat la nekk fële ci université Gaston Berger ba ca Ndar euh, nee na nag lu jëm ci immigration irrégulière bi nga xam Sénégal mu ngi koy dund jamono ji nañ jàpp ne du ministre de l'intérieur euh, du ministre des affaires étrangères ñoo ko mën a saafara mu ngi ci yéen kaay giir Sud Quotidien Abdoulaye yéen kaay bi di Source A yéen kaay giir Source A xëyee dellu soit ci état de santé Ousmane Sonko mm-hmm. yéen kaay gi ne jël ne taataan nañu ci kenn ci ay jegeñaalam nee nañ leen waxtu wuñ leen woowee xamal leen Ousmane Sonko ñàkk na bakkanam du leen du leen bett ndax situation bu metti lay dund jamono ji te bés bu yàlla bés bu waxtu wu nekk mën nañ ko yóbbu réanimation noonu la ko yéene kaay gi xëyee fësal leen tamit loo xam ne yéene kaay gi di suuf sax xëy na ko fësal te mooy dañuy xëyee dalal Serigne Abdou Lahad Gaynde Fatma euh, ci laaj tontu gi dox ci diggante mag suñu naatango yi wax na ci candidature Benno Bokk Yaakaar na ci avenir am ci wàllu politique wax na tamit ci wàccayu màggal wax na Baye Fall yi seen taxaw fële ci diwaanu Touba ba ci euh, ko mhm. wax ne kon nañu diggee euh, lépp kon mu ngi ci yéen kay ngir source a yéen kii di yor yor euh, yor yor dafa xëy dalal maître Ousseynou Fall ngir ñu ko xamul kenn la ci avocat yi layil kii di Ousmane Sonko ci laaj ak tontu gi dox ci diggante mag ma ngay dal ci Ismaïla Madior Fall mi ngi ci yéen kay gi di yor yor yéen kii bi di enquête yéen kay gi di l'enquête xëyee samp laaj bëgg a xam soxna Fama soxna Mama bi Euh, doom ji nga xam ne ni ne woon na ne moom la ëmboon ana fu mu jaar ndaxte gis nañ ko waaye bañ ko gis aussi dañ fekk ci moom ne amul ab yorewul amewul ëmb mm-hmm. euh, tax yéene kaay gi ne moom soxna si moom ëmbëm bi mu xale bi anamu mm-hmm. euh, waaye bañ ko laajee dafa ne daal ñi nga xam ñoo ko téye woon ñoom ñoo ko jël xale bi noonu la ko yéene kaay gii di l'enquête xëyee Fessel Abdoulaye yéene kaay geneen le soleil yéene kaay gii di le soleil dafa xëyee tey ji dem fële ci Linguère ci gox bii da doxo ba mm-hmm. Abdoulaye Doxoba benn gox la koon boo xam nga nekkee fële ci Linguère dox gox xam ne nii mhm. ñoo ko sanc ci atum 1942 ki ko sanc nag mooy El Hadji Socé Ndiaye Euh, nit yàlla la woon nee nañ dëkk ñaka ñafa njëkk a nekk ay dëkkandoom ay Guinée la ñu woon moo nekkoon Guinée mooy mun ak ay doomam mm-hmm. dafa nekkoon ay dëkkandoom moo tax dëkk la boo xam ne ni dëkk bu kéemtaane la ci wàllu taarix mi ngi ci yéene kaay gii si euh, yéene kaay xëy dellu si waat ci nga xam ne jamono ji ñu ngi ci ay jafe-jafe OM mm-hmm. daf leen a ngir mën a qualifier nga xam moom mooy Ligue des champions loolu mujj tax attu mm-hmm. ndax tour préliminaire dañ leen mujjee éliminé euh, tax yéene kaay gi ne Iliman ak Ismaïla jamono ji ñu ngi ci ay jafe-jafe noonu la ko yéen kaay gi di stade xëy fi suñu lamb ñan la géewal rëg-rëg bombardier combat ba taxaw na mhm. ñu ngi ko jàpp ni ki ñaar fukki fan ñeent ci weeru décembre rëg-rëg ñu ngi koy xaar Dakar ni ki tey ci alxames ji bombardier nag fas yéene jàkkaarloo rëg-rëg seen face face face mu njëkk mhm. ñu ngi koy amalee fële ci Gambie combat de <laughs> Seydina combat la de xam nga nag bëri na abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su ne ay xibaar yu wér wóor aju ci réew mi ak